tey laa féete samay 15 ans. quinze ans de mariage la de gato gi la ñuy reeree ñoom suñu gato gi la ñuy reeree dégg nga suñu ñoom ñett ku ne yor fourchette dem na si affaire bi plastique bi. waaw nekk kayak gini? mu koy génne. jaara muy bi am bi li filmé <laughs> eh ambil na luñ Kalau de xoolal bu baax. dañ koy reeree ko de dañ ku tibb sa morom tibb gis nga gato bi lëmb gato lëmb Adja moo lekk fii ba fee am neen keneen ci ginnaaw borom loxo yu xeesee kal Samira jaar moom dafa lekk ba suuf ngeen gato gi ñu nga ngeen li ñu wan gato gi ñoom ñett